maa lay bëggee. naka affaire yi. nice. lépp jàmm. nice kay. voilà tout dañ lay masawu ci li ceeb wax. waaw ma yëgal ko adduna yëpp. dafa am benn xaritam boo xam ne ñoo doon ànd si lamb ji si kambayam. dafa des si géej gi muy affaire bu métti. yaakaar naa looloo tax mu gëj a ñu ngi lay masawu di ñaan yàlla xare ko ajana. di la wax ne loolu mbiru yàlla la. man tam maa ngi koy masawu tamit mm. di ko ñaanal fi mu nekk yal ko yàlla yërëm mm. xaaree ko arjana waaw di naan Modou Antier ñu ñaanal ko billaahi waaw sama booy bu baax la woon nag amul lu ma dul defal mm-hmm. billaahi mais dëppi ba mu demee ba léegi daf maa manqué uh-huh. waaw mun naa wax loolu daf maa manqué daal ba ma si làmb yëpp billaahi ba léegi nii uh-huh. affaire daf maa jàpp sax mais waaw mais dinañ def le ñëw waaw maa si tërëni waaw Wow, mi nono, noonu ñu ngi mastawu njool bu solo di ko jaale di jaale waa yëpp di ñaan ibu Diaw mi yàlla na ko yàlla xare àjjana di leen di wax yéen ñi seetaan vidéo bi aussi ngeen ñaanal ko yàlla xare ko ak àjjana bi mu desee ak ci géej gi ak léegi ëpp na fukki fan saraxal nañ ko voilà ñu doon laajte njool bu sana mi ngi noonu nee na lii moo tax fan yi yëpp bëriwul voilà ñu ngi koy bu baax a baax voilà ibu tamit ñu ngi koy ñaan yàlla xare ko aljana lu mel ni gëj fi metti na torop mais mbiru yàlla la yàlla bu soxlaa jaam yi dañuy ñàkk ngeen ñaanal ko bu baax a baax a baax yéen seetaan vidéo yi